parce que wax nañ ko cheminots yi sonn nañu ñun on est des responsables bugguñu woon nag def tole di yéex wax loo xamante ne ni teguwul ak charte loolu moo tax tey ci suba ba démb on yi réunis dajale cadre bi woowuñu cheminots yëpp bien vrai que ni cheminots yi tey tam xarit la kenn ku nekk ngi wut lu mu jox yi njabootam comme ni ko ma joojo waxee amuñu ginaar amuñu cere seen doom yi jàngiwuñu kenn donc loolu rek coono la. mais man sama wax fi ma koy accès mooy dama koy accès ci président Macky encore une fois mu xam ni moom encore ci président yu gën a jeune ci Afrique ci la bokk mais lu toll ni chemin fer boo demee tey yow amul benn dëkk boo xamante ne nii privatisé nga chemin fer am ni ko nit ñi waxee rafet na mais terre bi mu ngi ciy def quatre cent et quelques cent cinquante quatre milliards mais du ko rapporter dara. pourquoi du ko rapporter dara parce que terre bi bul fàtte ni xam nga su fekkoon ne nit ñi dañuy jël sax oto di dem aéroport Léopold Sédar Senghor jëlatuñu oto di jël dem aéroport Léopold Sédar Senghor le terre là ne rapportera rien au président Macky Sall encore une fois parce que les gens qui quitteront Dakar dem di dem ay aéroport AIBD bés bu sottee te sotteegul seen oto la ñuy jël def ci seen bagage dem aéroport AIBD la majeure partie les quatre-vingt-quinze pour cent de la population sénégalaise. ay Tamba ay Ziguinchor ay Kaolack ainsi de suite la ñuy jógee te bu ñu fa jógee duñu dem Dakar nii la ñuy jaar dem kon loolu balaa ngaa xalaat loolu xalaatal suñu chemin faire fer bii on n'a pas besoin de beaucoup de milliards nous le secrétaire général Cheikh Diène l'a dit tout suite xam nga jënd machine d'accord mais su amee des problème urgents il faut régler ñun cheminots yi ay ingénieurs la ñu yu mag a mag a mag parce que ingénieur bu fi ñëw fii soo jaarul ci ñun doo doo tari tey lu ñu jàng six milliards bu ko amoon fii ci biir chemin de fer jamono jii ñuy wax les trois milliards seront destinés à la réfection de nos machines là qui sont en souffrance machines yi ñu paan yooyu ñuy wax les trois autres milliards seront destinés au point critique de la voie ñu defar ko ñuy dem kon bu boobaa ñun waxuma la ñaari train waxuma la ñetti train waxuma la mais dinañ dawal chaque jour ñaari saxaar une fois je l'ai dit nee naa tey les sociétés minières qui sont tey amuñu disposé wuñu ñoom yoruñu la licence ferroviaire de transport licence ferroviaire transport ñun ñoo ko yor ñun semaine de képp kuy dawal fii ñun ñoo la war a dawalal kon suñu demee ba teg leen ci suñu kaw ñoom ñu yor seen machine di dawalal seen bopp ça pose problème tey jii bu fekkoon ni chemin de fer moo yor seen transport di leen dawalal ñoom ñi ñuy fay chaque mois suñu sonnee ñun suñu digganteeg Mali bu doxul sax suñu masse salariale mun naa génn fii mais tey on est on a des problèmes on a d'énormes problèmes le président Macky Sall nag il avait pris des engagements syndicat rôlam alerte la ak veille on toujours alerte et on vous a toujours appelé devant ngeen ñëw fii ngeen témoigner ak ñun bés bu nekk bañ ñuy wax ay pro wu direction pro wu direction noo du ñu woon ay pro wu direction wu kenn mais syndicat vision fi muy dem am na foo xamante ni nguur ga du fa dem vision du fa dem tey lii lañ doon bañ moom moo ñëw këpp na suñu kaw tey Macky Sall il avait pris les engagements de reprendre ce chemin de fer ba moom ci boppam il a dit ci benn discours am tournez-moi la page de de de Transrail et de Advance tourné nañ ko yàgg na mais ay la yéwén ñun ñaanuñu yàlla laax ni chaque weer ñoom ñuy génn ay xaalis duñu ko jox pour di ñu fay suñu salaire ñun ñoo daan liggéey di fay suñu bopp suñu salaire bay fay policiers yi bay fay enseignants yi kon loolu ñun cheminots yi ñun loolu la ñuy demandé Macky Sall mu yónnee ñu xaalis fii ñu defar suñu machine yi defar raay bi fay suñu salaire ba fay ñeneen ñu mu bëgg. sinon nag am na loo xamante ni yeneen yeneen sa gars yi waxuñu ko mais lu fi am amuñu ay saxaar yu daw de du soxor du siis du iñaan ñun ñoo yor la la régulation de ces de ces de ces de ces de ñun ñoo yor la régulation de GCO la grande côte opération ñun ñoo yor la régulation du PTB yor suñu régulation suba dañuy taxaw laa la wax ni lu fi xew ñu xam ne ñoom la te kanton don instriction instruction à à aux éléments de de de de DBF. ils ont bien réfléchi ils ont bien réfléchi bi ñu ko tuddee dakaar ba ma ko Ferroviaire du dakaar Dakar ko Ferroviaire daw ba faatu la daw ba faatu la te ñu ngi daw ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dee les cheminots tey vous conviendrez avec moi que ni tey dee yi am ci at bii 2016 ci cheminots yi yi nekk en activité mosul am ci chemin de fer les hôpitaux bloqués cheminots yi di dee comme ay weñ comme ay mouche mois yi weer yi ñu génn rek enregistré nañu lu mat vingt cinq décès ëpp na ko cheminots yi dañuy feebar du ñu mën a dem seen kër ñenn ñu bëri ñu ngi wu seen lal AVC moo leen jàpp tey lan parce que amuñu ay structures sanitaires yoo xamante ne mun nañ faa yóbbu suñu njaboot mu catastrophique mënuñoo fay suñu suñu am am waxuñu ma sax ay fournisseurs parce saxaar dawul sax ba ñu ay ay fournisseurs mais quand am na loo xamante ne ni nit ñi dañuy liggéey ñu leen wax amul heure supplémentaire amul nangam sangam les mécaniciens ñu ngi rey seen bopp chef sécurité yi ñu ngi rey seen bopp aiguilleurs yi ñu ngi rey seen bopp ci yeneen saxaaru ay nit mais du yoon vraiment lii la ñu bëgg nag ngeen relayer ko auprès du président de la république ñu xam ni nag cheminots yi déterminé wuñu duñu ay ay ay nit yu responsable lañu mais du ñu ay ñoo xamante ni ragal nañu kon donc kon lu ñu wax ko loolu mu def rapidement moo gën muy jël ay milliards ay milliards di ko maye wala di ko ubbee ay 32 milliards ay stade di ko defaree pour mbër yi terewuñu ko mais nañu xool fi priorité yi nekk ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor accès de développement yi ñu def ko suñ ko defee loolu am jural Sénégal jàmm loolu moo gën c'est notre président de la République ñu ngi koy jox honneur yëpp nag di ko jox respect yi gën a màgg ci respect yi mais chemin de kenn waru koo bàyyi mu daanu su ko bàyyee mu daanu moom ci boppam. na xam ni c'est sous sa responsabilité ci magistère u Macky nag mu bàyyi semaine fair mu mu jullootu moom mooy jullootu te lépp lu muy wut ci Sénégal na ko bir ni moom man maa ko wax jàkkaarloo ak moom du ko am du ko am fii chemin fer ku fi def teraanga yàlla may la teraanga ku fi def musiba nag yàlla may la musiba goo xamante ne gu toll ni maara dem si la camarade lii la. asalaamaaleykum camarade asalaamaaleykum journaliste yi tey boo gisee ñu leen fii tey. mooy dañoo jaaxle lu ñu jaaxal mooy gouvernement bi charge mu jëloon la respecté maanaam dafa jëloon ay charge ne day defaraat chemin de fer foqate ko si ku fi nekkoon def fer de prince ñu yaakaaroon ne bu ko jëlee tey du toll fii ñu toll kuy wax salaire mooy kër gi moo doxul moo tax ñu wax salaire te ñun dañoo bëgg am maintien si kër gi kër gi di liggéey ñun yaakaaruñu woon chemin de fer dinañ toog ba suñuy salaire di jóge si bitim réew si feneen si feneen donc yaakaaroon ñun ñooy liggéey di fay suñu bopp tey ñun ba président Macky Sall waxe ni day jëlaat kër gi yaakaaroon ni si façon bii li koy jëlee yaakaaroon nañu tey nu mu def bërki démb def ko dem dikk wutal leen ay oto yu ay 480 car waxul ay pièces de rechange noonu la Ablaye Wade defoon bu mu ñëwee en 2003 fekk PTB daanu amuñu saxaar mu dem jënd leen ay machines yu bees ay wagons yu bees ay express yu bees ñun yaakaaroon nañu tey Macky sàll bu ñëwaatee jël dëkk bi le président jël réew mi toog bi si yàgg xeexee ki fi ne ne damay jël chemin de fer yaakaaroon nañu ni tey ay machine la ñuy indil ay wagon ñuy liggéey ñëpp xam ne ñu ngi liggéey ñun liggéey moo ñu ñor leneen ñoru ñu TER bii ñuy wax tey Transrail yëgu si boppam fu ñuy waxee quarante quatre cent quatre cent quatre-vingt quelques milliards ma dégg ñu ne trente cinq trente huit milliards mooy defar seen gaar yi te trente huit milliards boo ko dugaloon semaine de fer jënd ko ay machine kon ñun tey suñu raay sax dinañ ko mën a defaral suñu bopp. kon ma yaakaar ne président Mbacke Sall ñu koy conseillé waxuñu ko dëgg. waxuñu ko lu nekk ci yëf yi dem nañu règlement préventif dem nañu chemin yëpp yóbbuñu ñoom ñu jëlaat ko ñu am problème kon moom ñu koy waxal si Transrail si chemin de am na problème kon war na revoiraat ñu koy waxal ñan la ñun ay travailleurs lu ñu ay sénégalais lu ñu suñu partition ñun mooy chemin de fer doxal chemin de fer la volet ferroviaire te ñu toog ñu dégg ñu naan terre bi ñu ngi siy def quatre cent quatre cent quatre-vingts milliards chemin de fer tey boo ko joxoon vingt milliards sax mu jënd ay machine te ñu yaakaaroon ne tey président Macky Sall bu ñëwee bu ne dee jëlaat chemin de fer pendant des années mu koy dox bu ko jëlee duñu yóbbu si phase bii transition boo xam ne nee nañu c'est pour quatre ans toog nuñu ak di ak ak ministre yi ministre du transport kan secrétaire d'État ak l' ensemble de son gouvernement ñu toog ne ne xam nañu transition bi mënatuñ ko yóbbu si ay un un mois neuf mois quatre ans ou trois ans la jëm. loolu danga def ne nii mu ma war a doxee kon kon ñu yaakaar ne moom noonu mu def dem dikk wuti ay machine jox ñu ko ñun ñu liggéey ñu ñun waxuñu waxu salaire suñu survie la ñuy wax parce que entreprise dafa war a dox. tey ñu yaakaar ne gouvernement bi war na am beneen son de cloche par rapport à cette son de cloche cette son de cloche parce que lii ñu fa samp même pas six mois la amagum ñuy am problème salaire machine yi di garé mënuñu def ay train bu continuer fu ñu jëm ñun kooku sénégalais yi dañ ko war a laajte dañ ko war a wax ñu ñuy wax ay teeru quatre cent et quelques milliards du ñuy wax ay lii ay ñun euh, ñun ñuy demande un peu wax nañ leen ne ay pièces de rechange waxuñu ay pièces de rechange nu ñuy indil ay machine nu mu def bi indi ay oto nañuy indil ay machine ñuy liggéey saxaar goo xam ne daw na plus de 30 ans mu ngi mel ne sa dàll booy sol pendant 30 ans di ko suré bu yàggee da nga sol ñeenti kawas juróom-benn kawas moo am sunu machine yi. parce que tey mën nañu jox ay pièces ëllëg a gis ci biir machine yi pan ñoon joxoon nañu leen ay pièces te ñun lu ñu gën a jaaxal bi ñuy gëstoo Sénégal Mali seen 3 milliards yi ñu doon wax 3 milliards 750 millions par pays boo ko boolee muy 7 milliards 750 muy 7 milliards 500 ñun bu ñuy gëstoo ñoom. un milliard deux cent millions la Sénégal joxe Mali joxe un milliard deux cent cinquante millions mooy sunu salaire yi ñu commencé jox depuis décembre ba léegi mooy lan la ñuy def kon ci kër gi ñun dañoo demande ñu ñuy fay dañoo demande ñuy liggéeyal suñu bopp def production di dëkk bi muy suñu participation en tant que sénégalais mais ñu bëgg xamal ne président de la république ñun cheminots yi taxaw nañu le volet ferroviaire nag mi ngi daw y'a quatre chemins de fer ku ne ñu ngi daw te bu ñu tegoon suñu loxo ñu arrêté ñoom ICS ngi def quatorze trains jour service sa ngi daw peut baa ngi daw ñun ñu croiser les bras kenn jàppale wuñu te ñu leen jàppale ñoom état leen jàppale mais président Macky Sall lan la bugg su ñun ñu ko wax boo créé administrateur daana da ko bëgg a jox la day na chemin de fer da nga koy jox les moyens wala wuti ay machine jox ko mu liggéey mais ma danaa la fayal ay nit salaire du machine du raay du wagon du pièce d'essence mais fan la ñu jëm ñun mooy am na leneen lu ñu làq si biir un équipe équipe du football boo amee un entraîneur pandant dix ans mu yore la am indilu wala coupe indilu wala championnat indi wala dara war nga xool entraîneur yooyu ñan la war nga leen changé te je pense que ni gouvernement bi ñu leen di conseiller ci chemin de fer waxuñu leen dëgg tey secrétaire d'état bi ñuy wax bërki démb fii la toog signe national bi télévision nationale mu ne le train qu'on avait changé euh, groupe mixte bi acteur boobu ma nga Mali te boobu temps mi ngi gaaru Thiès di manœuvrer tu crois que ça c'est ministre de la République donc nous on demande à l'État qu'il prenne ses responsabilités le chemin de fer appartient aux Sénégalais il n'appartient pas aux cheminots le chemin de fer le euh, président de la République